ah kii di sëñ Baara <laughs> ndeysaan xaritu jaaykatu pharmacie bi jaay ma gulu gulu gulu gulu lu ko fiy këyit mooy li mag gulu gulu <laughs> mu ne man xanaa xamoo ma yebal elamam ñu jëli ko ah, Baara mii nag moom it kenn daan dëgg la nag waaye <laughs> sëñ Jumaay daa tëbal na ko tay de noonu la noonu la dabas ki gi moo bëgg lu doy waar rek. nga bas ki da እንቀበስ ከሄዳ doy war ዳይሳን suñ baar non la laaj demal lalu ji ba xam rek ñu ñu xol ba xam ñi nga xamne arme de guerre lañu waran ak yoy ba xam dañu ñu ngi sétal ba gis leen ko ak numéro 9 bi dina ngi ni mo tax ba ma gisee commissaire ba dem mu taxaw RTS di wax man ko yow ba legi ñi yoro arme de guerre ya leen feñu gundi te yeen la nandal lo gabas ki da yaqul rim xam nga day fekk yaay kar bu pharmacie nga ne ko jaay ma li mu ne ko ordonnance fi yeen baara ne ko aje na dem dabal hehe bareng nih tadi ada senjawa itu bang gila kakak ex commissaire Keita te nga xam ne yaakaar naa li taxoon ñu raje ko amul yaakaar naa sax li taxoon ñu raje ko dorog ak def yëf ci lañ ko dàqe woon ex commissaire Keita moom nga xam ne boo kanam gi xam ku bon rek da nga xam mbon dana ci kanam mooy ex comité commissaire Kayta boobu xam nga am na ñoo xam ne danoo tàmm mandi ba même buñ foonut lu bon laalu lu bon sax bu naaju tàngee ñu mandi ba yàq seen tubay ex commissaire Kayta nag ci la bokk te it mandi dalay orienté lim la jox rek dëgg la ci yow commissaire Kayta jamono bi muy wax Sonko ak Jomaay dañuy xeex wax na dëgg <laughs> wax na dëgg ndax li tax mu wax dëgg mooy moom li nekk ci bopp bi mooy dëgg ci moom. tey sax wax na dëgg Sonko ak Diomaye ci xeex lañ dëkk te toujours Sonko mooy toon Diomaye waaw joolaa bi ak séréer bi dañuy xeex rek waaw ndax xëy na dañoo yéenewul dañoo yéenentewul jàmm moo tax ñuy xeex waaye yaakaar naa yéene weesi wut joxañ la ay nit ñu fal la te it yéene la jàmm weesuwut nga ne kii fii ma toog ak ak président ni mu neexee dee ko xool bu ko piis dee ko nee ko jàkk di ko xool bu ma sañoon nga ñëw fi toog ñaar ñooñu seen yeneen yéenente jàmm ëpp na xeex ci lan dëkk ni ñuy xeexe nag laa bëgg a leeral commissaire Kay Sonko ak Diomaye ni ñuy xeexe mooy toujours ñi ngi xeex ci lobby yi nga xam ne sii ne ñoo fi nekkoon te yàgg fi te commissaire Kay te bokk ci système bu bon bi fi nekk te yàgg fi te commissaire Kay te bokk ci ñu fexe ni système système bi sete te seetal ko jafe lool ndax système bi danoo bari côté bu ne ña nga fa foo yaakaar ña nga fa ñi ngi ci diine ji ñi ngi ci politique bi ñi ngi ci sport bi ñi ngi ci waykat yi ñi ngi ci mbëri làmb ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñooñu nag pour ñu set ñi ngi ci police bi ak gendarmerie bi ak dégg nga maam ñi ngi ci hôpital yi ñi ngi ci fépp fépp fépp ci senegal léegi nag ci loolu la ñuy xeex ñoom fu ñu toll rek ñi nga toog di discuter di ci sànnantey kurpañ waaye nag ñoom seen ñaar si ñoom ñaar seen sànnantey kurpañ kurpañu teraanga njekk ak teraanga la ndax kenn ki ne kii tudde na doom kii dégg nga kii jël nam réew teg ko ci loxol kii kii nekk na ministre kii te nangul ko ko nangoo topp ci gannaaw mi kilifaam te kële mooy kilifaam ci politique kon ñoom ñi ngi xeex rek xeex rek lañ dëgg xuloo it dañ koy def ndax jomaa yi nee na toujours dañ nekk di discuter fii ba minuit Sonko naan ko defal lii mu naan ko lii moo gën ñu xëccoo ci li gën di ko def xëccoo ni saxaaba yi daan def lu gën ñu jàpp ne lii moo gën ñu cay xëccoo di ci xëccoo di ci xëccoo di ci xëccoo ba seen jote yooyu gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax yiw la ndax kenn ku ne far lu dong la ak xëccoo bëgg lu baax xëccu wasaariho ilal xayraat da ngeen di gaaw jëm ci aw yiw xëccoo daw googu ñuy xëcc nag di dem ci yiw mooy xeex bi ak xuloo bi Sonko ak Diomaye ci xeex ak xuloo la ndëkk waaye dankub kurpañ moom jëmee sa gimiñu morom yaakaar naa kenn ku ci nekk yéen nga sa morom loo xam ne dankub kur sa kurpañu bopp jëmee sa gimiñu bopp moo la koy gënal man yaakaar naa ku ci dankoonu kurpañ ku ci dankoon dara aw ñam lay doon wu neex woo jëmee mooy yéen sa morom. nan na yónnante defoon saxaaba ya ba mu leen tegalee yax ga ñu yaxu yàpp ga ñu koy buuxante ba mu jël siwaat ci moom ndax yéenante ko ku ko gis ne diwa ci gën a yay ku ko gis ne diwa ci gën a léegi nag comme commissaire Kayta ci système bi la bokk te xëccoo ak xeexante ci lu bon ci jigéen ju baax jabari jàmbur ju rafet ju nangu ko dorog dégg nga sàcc xaalis si jàmbur ak suuf si jàmbur comme loolu ñoom lan lañ tam moo tax ñu defee ne ñoom ñu ngi raayante waaye Basiiru mii ak Sonko mii joma ini na leen da ngeen ko xaarul yag de tay len da ngeen ko xaarul yag xex be xulo bi ngeen bëgg ñu ne ha ah, mu ne da ngeen ko xaarul yag te du ngeen ko gis dañ ko yakamti nak te du ñew mukk yakamti lu du ñew nak wala nam du gis loolu wax deug yalla bëgg nam do ngula nan tay te dal commissaire Kayta nak comme wolu nan ko dana wax scénario bi nim démé xana <laughs> ku ñëk door rek Euh, système bi bon nañ te amel nañ àq Sonko Sonko moom nee nañ lépp lu bon rek moom naa lépp lu fi baax rek Sonko la ndax ñun Sonko moo nu tàqaleeg saay-saay yi doon sàcc suñ suuf si Sonko moo nu tàqaleek ñi jëndi ngànnaay di rey suñ doom yi Sonko moo nu tàqaleeg fenkat yi ñun li nu gënoon a jafe moom la ñu am danañ ko téye suñ fukki loxo nag donte yàlla ñaari ñaari loxo la jox nit waaye fukki baaraam la ko jox bu ne fukki loxo rek fukki baaraam yëpp naan tikk waaw ndax njiit luddut fenn du sacc mo jafe woon Sénégal am nañ ko njir luddut fenn du sacc lolou lu le senegal Sénégal comme am nañ ko nak ay wax ak diaboliser munu ci dara na noppalu na noppalu Khalifa Sall mi nga xane ne la xamut fum jëm 1% de côté da na ma nga jema dajalo daw lang ca PD PS PS amatut quoi yow lo xamne 1200 yang ko and ak Macky Sall bi muy jënd nga nga ngànnaayu 40 milliards wa PS ngi fi bi ni sédélé suuf yi waa PS ngi fi bi ni yàq derum nit ak ray goné yeeg tëj kasse yi ban fess bobo wa PS ak Macky la mu wat né da bëgg dajalé and ak wa PS ñu def li wa PS amatut aw tur dess na fi waye lenn nit PS bam sey seeyee na PS ak AFP ak yu kenn xamut ay renouveau xaw ma jibaak layti kabaak xaw ma lan man ci parti yooyu nga xam ne moonu moonu mag yooyu amatul léegi nag am ñu fàq ca moom ba ñu am fu la waaw parce que nee nañ ñun mënuñoo comprendre PS nekk fi fukki at ak ñaar lu dafa def ci lu bon ñoo ko ànd buñ jëndee ngànnaay di rey nit ñi ñoo ko ànd buñ lekkee kéwél yi ñëpp bokk ñoo ko ànd buñ jaayee suuf ñoo ko ànd dégg nga bu ñu yàqee derum nit ñoo ko ànd ba ba ba léegi nag ñu wëlbatiku ne dañuy àndaat kon ñun moom li ñuy li ñu bëgg lu mu te loolu lañ ko bàyyee ma ne leen yéen li ngeen ko bàyyee argument yu leer ñi ngeen indi donte ñun transhumance soxla wuñ ko waaye yéen du ngeen ay transhumance bu leen neexee ubbil nañ leen guddi ndax yéen du ngeen ay transhumance nag ndax yéen jotagul yoru leen pouvoir dégg nga yoru leen lenn kon yéen ubbil nañ leen suñuy bunt ndax waxuma la dara waaye dëgg gi ngeen dëgg gi ngeen gi tax ngeen bàyyi teg ko ci taabal gi donc ak gor a ko man gor day seetantal bu dee neex ak bu dee naqari mu xool li muy def lu mu doon waaye bari di ko lekkaat mel ni Xalifa sàll loolu ak mbon weesu moo tax ñii seenu mbon boo ko takk weesu na ko système bi nag nii la mas mel Xalifa Sall mos a génn ci système bi àqi Sonko wóolute gu ko Sonko wóolu woon moo ko dal moo tax mënut a am un pour cent xam na boppam nag fi mu ne moo tax muy daw di lang ca PS buñ fàtte ne ban fii xëppante suuf ñoo Bamba Faal ak ak a def yëf ci fi la ñu fekkoon waaw benn transement nag bu bokkoon ca raykati gone ya maanaam euh, régime ndafa bu Sonko di wax naan yi bu ñëw képp ku bokkoon ca régime raykatu ndafa dégg nga nga bokkoon ci PDS dégg nga ci ca nguur ga bul bul bul bul jël sa bët teg ko ci ñun doo bokk doo bokk waaw kon nag commissaire Kayta comme gars yi commissaire yi ex commissaire Kayta laa wax maanaam commissaire Kayta ex commissaire Kayta comme ñi nekk commissaire original woolu nañ ko. xëy na dañ leen tegal film ab xeex bi fi fi fi fi fi sànni sonko maa jéeri ma sonko sànni ko jàkk sukki <laughs> xëy na danañu ko tegal waaw danañu ko tegal <laughs> ñun de leen saay da ngay réew sool parce que am na yoo xam ne gone gu ndaw gu gu tim soow sax war na ko wur sa wax yaayam di ko fem mu waxuma laak ponkal mu tol ni commissaire Kayta nga xam ne dee ko dese waaw mais nag xëy na dana leen leeral combat bi nu demee